kon suñu gan euh, Papa Sayer Gueye la ñu ci recevoir euh, ancien ambassadeur itinérant excellence nga jiite it tey ji réseau africain pour la gouvernance des migrations ñu dellu nuyu la. Euh, maa ngi lay fay ngoone di la njukkal ci invitation bi fas yéene waxtaan ak yow point bi nga xam ni actualité Sénégal ak àdduna yëpp. moom moo leen yëngal. muy actualité bu métti ni nga ko suivre excellence bilan bi di gën di diis euh, ci euh, limu sénégalais nga xamante ni ñàkk nañ fa seen bakkan waxoon nañu ay blessé ñu ngi tamit ci ñoo xamante ni ba tey gisaguñu leen euh, mais mel na ni fi muy jëm xëy na du neex ndax léegi limu ñi ci faatu toll na ci fanweer ak ñett muy loo xamante ni tiis na trop. tiis na ñu ngi massawu umma islamique bi yëpp ci àdduna di leen ko jaale di ko jaale mbokk sénégalais yi di ko jaale. seen njaboot yi te di ñaan yàlla yaakaar jiñ am ci bis bu tedd boobu suñu ujaaj yooyu des fa yàlla teeru leen ca ajjanay firdaws ginnaaw loolu nag euh, mbir bu amee dañ ko war a càmbar càmbar bi ma ci gis mooy ñaari xaaj benn bi mooy responsabilité bi nga xam ni ñiy organiser di arabi Saoudite ginnaaw bi nga xam ne dogalu yàlla mm. lan mooy seen responsabilité ak ci taxawaay ñaareel bi lépp li ëmb état Sénégal ak acteurs yi nga xam ni yëpp ñoo ci nekk muy ñi def communication bi muy ñi nga xam ñoom ñoo yor commissariat pèlerinage bi muy autorité étatique yi premier ministre bi nga xam mooy chef de l'administration centrale lan mooy ci seen responsabilité ñu taxu ci Arabie Saoudite euh, excellence ndax euh, xëy na ndorteel li ñoom euh, xawoon nañ ko bëgg buux ujaaj yi xam le ni xëy na ñoom ñoo suivre instruction yi parce que premières heures yi après drame bi loolu lañu waxoon ñu dem ba ci biir mais ci li nga xamante ni moom moo mujj xew muy démb génn nañ benn communiqué daal di jéggalu mel ni xëy na ñi ngi gën a jël conscience wala gën ko bëgg nangu que ni lii xew tey jii bu weesoo dogalu yàlla am nañ ci wàlla ñoom it dëgg la parce que Arabie Saoudite toll ci presque ay juróomi ñoom ay ujaaj yu jóge ci àdduna bokkuñu làkk waaye nag ñoo bokk benn diine ak chartu islam kon bu koy organiser ay limu at yii yëpp amul excuse yenn fautes yi wala yenn erreurs yi waaye loolu dëgg-dëgg liñ ci mën a jàpp mooy heureusement ñoom ñu dellusiwaat wax li ñu wax mais enquête indépendante boo xam ne ku mel ni OCI yi xëy na bu ko sampee en collaboration avec Arabie Saoudite danañu gën a am firnde lan moo indi jéye ji ndax nag buñ ko seetloo Arabie Saoudite buy organiser li nga xam ni mooy mooy mooy mooy pèlerinage bi dafa nekk ci contexte international buy doy waar géopolitique dafa nekk ci guerre ci Yémen nekk ci sécurité intérieure am ak stabilité politique am mu am ay moytu ak ay taxawaay yoo xam ni fokk mu sóoraal di ko loolu yëpp nag bu koy sóor bu ak gi ñëwee day multiplier wu ba tax na sax bi ñuy wax ni prince bi bi muy jàll bokk na ci liñ wax ni ci la xëy na wut kaaraange ci autorité bépp bu fa nekk mais rawatina aussi autorité euh, euh, saoudienne yi nga xam ay ay ay cible potentielle lañ mën na ci mais loolu lépp nag dafay xëy na du ñëwagum ci solution yi mm-hmm. su fekkee ni dinaa suivre sa conduite ni ngay mm-hmm. tege waxtaan bi bu fekkee ni dañu mën a jàll ci mais ci wàllu est-ce que par exemple ni ñu njëkkee réagir euh, xoo xëy na ni ñu ko waxee géopolitique beeg yooyu parce que Iran après gis nañu ni mu ko euh, acculé ak yooyu euh, parce que ñoom tam seen liñ ci ñàkk ci ay doomu aadama tey jii dafa bari mu mel ni tey jii bu fekkee da nga ni aussi dugal ci loxoom yaakaaroon ne bu ñu bàyyilee Arabie Saoudite mbir mi xëy na du leer du ñu xam exactement ce qui s'est passé. dëgg la ndax boo xoolee géopolitique boobu mooy indi ni Iran taxawee. Mm. Iran li tax mu taxawee noonu. mën nañ ci jàngat ñaar benn bi lim fa deelee dafa bari ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn walbati ko am ñetti téeméer yoo xam ni euh, gisuñu leen kon day mën a yokk mm-hmm. boo xoolee ñoom dañu jël seen ki nga xam moo jiite seen diine foofu mooy gidd bi moo njëkk yëkkati kàddoom naqarlu dal seen kaw président bi dem ba Nations Unies soixante-dixième session bi mm-hmm. mu yëkkati kàddoom wax ni ak cuune ak ñàkk doxal li leen war la Arabie Saoudite beneen bi mooy ñoom dañu nekk ay chiite ñee nekk ay sunnite ci wàllu ni diine di doxale mhm. ak islam niñ koy doxale ba ci aj gi xëy na ñoom dañu ci am ay woroo xëy na yeneen réew yu mel ni ay Koweït ay Oman. bu lii amee day gën a indi donc ni Sénégal di taxawee. Mhm. ànd ak dal ni Koweït nga xam ne dafa nekk ci accord de conseil de coopération boo xam ni moom ak ay réew yu bari ak ay émirats arabes ak Arabie saoudite dañ ko lëkkale ñooñu ak lu ci mënoon a xew dana am nu ñu taxawee nu bokkul ak ni Iran taxawee. mais est-ce que njortoone ak li nga xamante ni moom moo xew tey ji parce que ku xam màkk xam ni euh, certes Arabie Saoudite def na ay changements yu bari mais xëy na lim bi mu daan joxe yeneen at yi dinañ ko revoir parce que euh, sécurité nit ñi bu demee ba muy xaw a sooke ni euh, limu po ñi mu daan dalal ci wàllu at ji foog ñu xoolaat. loolu moom defe naa mooy xalaat bi jiitu. xalaat bi jiitu mooy d'abord gouvernance bi bu bu ni ñuy saytoo at gi. laaj na ñu waxtaanewaat ko ba mu am ay coppite ba yeneen loxo dugg ci parce que am na kuréel yoo xam ne am nañ expérience am na kuréel yoo xam ne sax ci aj bi boo seetloo boo jëlee exemple Sénégal rek mhm. suñuy dem ci équipe bi day am des peut-être des psychologues am mhm. ay médecins kon déjà organisation Arabie Saoudite rek mënoon na intégrer chaque état yenn ñoo xam ni ci seen xam-xam bu bis taxawee rek mhm. dañ leen di alerte rek ñu ñëw dugal seen loxo ci musiba mu am wala ci jàmp-jàmp bu am. ñu ñu dellusiwaat uh-huh, excellence ci ni nga xamante ne nag noonu la ko suñu autorité yi géré parce que yaa ngi wax sànq cuune ci wàllu Arabie Saoudite mais fii ñoom tam euh, ñu bari euh, naqarlu nañu ni nga xamante ni noonu lañ ko doxalee parce que gis nañ ne rapidement après le drame ministre des affaires étrangères wax na ni euh, sant yàlla benn doomu Sénégal bokku ci xëy na dalaak recul bi ñu waroon am suivre situation bi noonu amuñu ko ñuy dem ba ndànk-ndànk xamante noonu lañ dox xam nga système d'information bi moo baaxul parce que système d'information su fekkee crise am na cellule de crise bi ci terrain bi lay nekk su ko defee bi bi ministre des affaires étrangères waxee ni alhamdulilah benn sénégalais bokku ci mhm. foot sax non seulement di communication ci li xew mais par rapport à la umma mhm. parce que ay téeméeri nit fu ñu dee rek waroo jiital ñun bokkuñu ci mhm. kooku déjà bu bu garaaw la ñaareel bi mooy ña nekk sur le terrain système d'information ba ñu waroon teg parce que rajo privé yi dañ fa nekk. Mhm. télévision privée yi dañ fa nekk télévision internationale dañ fa nekk kon information fu ne lay jóge dugg ci net bi ñëpp yëg ko kon déjà waroon nañ am benn cellule boo xam de communication interne boo xam presse sénégalaise bi ak presse internationale bi nekk foofu ak commissariat pèlerinage ak autorité mais foofu eh, commissariat am na ci wàll parce que moom li mu waxoon mooy bi ma jokkoo commissariat xëy na commissariat ni ko privé bi reproché ni xëy na ci ndox ndorteel li associé associé wuñu leen woon te ñoom plus de huit mille yi ñoom ñoo leen yóbbu quand même dëgg la loolu laay wax ni ñoom bu fekkoon ni ñoom doxal nañ lañu war a doxal ñoom dañu war a am le maximum d'information te foofu mënoon nañ jël ñetti mesure première mesure mooy crise bu mel noonu bu amee ñu installer une série de crises xool étudiants sénégalais yi fa nekk ni ñu leen di jëlee ci contrat local ñu miin dëkk ba miin réew ma di làkk-làkk ya ñu mën leen associer ci ñu déployer ñu encadrer leen par parce que xam nga aj bu amee euh, ña nekk ambassade Riyad ak ña nekk euh, consulat ba Jeddah dañuy rappliquer ñoom ñëpp dañuy ñëw état major anticiper pour fexe coow lu am problème bu am maintenant nag su lëkkale amul parce que loolu commissariat pèlerinage bi li ñu ci jàngatagul en attendant enquête leeral mooy communication dafa des bu baax. profil ci boppam parce que lu mel noonu booy jël ku ko jiite dangay def synthèse dangay jël un manager jël koo xam mën naa yor ay nit. jël koo xam xam na ci xam-xam islamique gëm koo xam ne làkku arab ak làkku anglais jël ay ñi ko ànd ak moom it keem ponk yi nga xam ne ñoo war a génn ci aj ji ñu xarañ ci su ko defee nag ñu mën a jël aussi ñi nga xam ne ñoom mooy arabisants yi ak jigéen ñi nga xam ni ñu nga fa nekk te yàgg fa su ko defee loolu buñ ko boolee mënoon na jur mënoon na jur wàññi charge yi parce que ñi jële Sénégal ñuy dem en tant que guide guide dañu jàpp ne ëpp na foog ñu wàññi ko foog ñu gën a yokk étudiants yi foog ñu gën a yàq ña fa dëkk su ko defee mën nañ sax parce que ñun tradition Sénégal mag ñi dañuy aji te mag ñi aji fi mu ne dama jàpp ni war nañ dem ba gën a personnaliser parce que àdduna day gën a jafe ba bu fekkee koo xam ne chariot sax daf ciy laaj. Mhm. ñu mën ni kat kii bala moo déparé fii ñu xam ne buñ. excès ñu koy lijjanti 33 euh, morts pour l'instant mu nekk loo xamante ni xëy na euh, bu bu ñu dawalee li ñu suñu xel war a mën a may ak li mu ko réer ñi nga xamante ne ñu ngi feebar euh, avion yaa ngi ñibbisi muy kon leneen lu ñuy séentu mu gën a diis tey jii. kon parce que mu tam ci njaboot yi parce que ba tey jii ñu ci bari dara ci xibaar ko moom di. xam nga bu ñu waxee xam nga ci ci norme internationale. mënoo xëy ne nit gisuma ko dee na dafa am loi diir bu mu àpp diine dafa am diir bu mu àpp su ko defee moo tax ku ñu gisagul rek dañ naan gisaguñ la waaye bu ñu gisee moo tax boo gisee ñi ñu déclaré woon cinq wala batiku di wax onze quatorze tey trente-trois ñaan dañu jàpp ni yokk lay def mm-hmm. waaye wàññi moom kenn xalaatu ko kon loolu mooy wane ni responsabilité parce que premier ministre du Sénégal xam nga moo joxe information bi. Mhm. mais xeexoo bi mu amee fa la ko fekk. te moom mooy chef de l' administration centrale kon gouvernement bi dañ am responsabilité bu rëy kenn neewul ñoo rey ña fa dee kenn neewul ñoom ñoo indi la fa xew ginnaaw la fa xew nag ñoo am responsabilité communication bi njaboot gi ni nga wax parce que xew-xew bi bu amee gendarmerie am na. préfet am na police am na gis nga information bu ñu ko jotee ci cellule de crise bi foofu ñu balancer ko affaire étrangère wala intérieur automatiquement mën nañ personnaliser benn gendarme benn euh, commissaire bu dem ci famille bi jaar ci mag bi mu ko mën a waxal ñu xool nuñ ko waxee ñu def ko la des nag je crois que mooy mesures yi ñu war a jël mesures yi au niveau de l'État de Sénégal il faut sanction sanction jaroon na sax ba ci premier ministre parce que bu ñu commissaire pèlerinage moom normalement kenn waxatu ko. Mhm. kooku moom. Euh, ba ci premier ministre ba ci parce que responsabilité. boo bëggee sax dafa war a dem dafa parce que xew-xew bu mel noonu mënu am ci réew nga jóge fa dem ay ay États-Unis ay meeting ministre des affaires étrangères waxoon lii nekk foofu jóge fa ñëw fi di delluwaat cacophonie boobu. Mhm. dafay parce que kenn amul lu weesu benn bakkan rawatina fanweer. gërëm la léegi fi may terminer mooy Arabie Saoudite war nañu. ubbi ci OCI benn conférence gouvernement Sénégal war nañ ci mën a démissionner ñetteel bi ki nga xam moo jiite pérénage moom dañ ko war a teg fële li des nag mooy ñu fexe ba étudiants yi fa nekk ak ña fa nekk ñu gën leen yokk te ñu xoolaat nag xam ne aj gi léegi waratul nekk rek xaar ba aj gi mm. war nañ ko lëkkalee ak umra bi ba kuréel bi koy saytu nga xam ne expérience bi day permanente. excellence excellence ñu lay gërëm par Sayer Gueye moom lañ doon daral jaajëfal la euh, ci euh, leeral yi nga indi ci xibaaru digg bëccëg bi gannaaw li nga xamante ni moom moo xew ca mun naa. man maa leen di remercier di sant te di ñaan yàlla fii ñu jublu at yi ñu jublu at gi gën a set.